kàddu yi ab woote la waaye ñun wootewuñu wuñu yàlla ak yonentam ñoo woote Fass Jaksaaw nag mooy barabu Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu bari na yuñ fi doon jàmbat di ko ñaan di ko sàkku mën naa ni lu ci bari réalisé wu na bu dee wàllu matériel agricole fa tabarakallahu président yónnee nañu ko lu ñu gënoon itteel tamit bokk na ci muy deuxième forage bi ndax forage bi fi nekk ci jamono baay ab depuis 83 la woon te forage ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na dem ci dañ ni bu amee 30 ans rek bàyyil xel ni mën na xëy xëy taxaw waaye yàlla baax na. njiitu réew mi joxe na ci ay instruction ba kilifa yamu ci joxoon ndigal contacté nañu yebal nañ fi ay ndaw ay technicien ba ñu ñëw bind def rapport yépp ñu ngi am yaakaar ah waaye di leen ci soññi ndaxte ndox moom leneen la. ci wàllu tamit kër docteur poste de santé defal nañ ñu ko fi waaye daal ñu ngi sàkkuwaat ci état bi jaarale ko nag ci seen jëwriñ bi ngànk loolu di suñu frère di Ablaye Diouf saar bi nga xamante ni moo amee ministère de la santé bëgg nañu daal ku ñu gën a élargiral post de santé bi lu jëm ci wàllu maternité ak saal yi ñu ngi ci ak lu jëm ci wàllu ambulance ak lu jëm ci wàllu matériel ak tamit bu li mu docteur yi ma ne yokk dañuy ñaan sax ñu dem ba am hôpital niveau de fii ci dëkk bi incha allah lu jëm tamit ci wàllu daara ji ñu bëgg ko taxawal incha allah jublu ci muy institut islamique boo xamante ni internat lay doon doomi sénégalais yi di ci ñëw di fi gëstu di fi jàng di fi jàngale loolu tamit ci ay suñu ay projet la bokk incha allahu taala ci wàllu ambulance am na tamit njaboot yu nekk bitim réew ca Italie ku ñu naan suñu frère alxaaji Ablaye Fall jiite leen suñu jigéen soxna Xadijatu Diop yàgg nañu bëgg jàppale Fass Diacksao ñu am ambulance ak suñu benn doom di alxaaji Pape Seck di doomu doomu Alaaji Seck bii docteur ci Pire ak ñañ ko bokkal defe naa ni ambulance boobu sotti na dafa am yeneen matériel ak seen partenaires yi nga xamante ni ñoo leen di jàppale ci loolu defe naa ni am na lëf luñ ci fàgg lu am solo. ñu ngi ñaan autorité yi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw yoon yi muy douane muy gendarmerie muy police ak homme de tenue yi nga xamante ni ñëpp seen liggéey màcc na jëm ci loolu ñu dimbali leen ñu assisté bu baax niñ koy defee at mu jot ak beneen xew-xew bu dul bii ci réew mi jàppale askan wi. pèlerins yi nga xamante ni ñu ngi jóg di ñëw pour fekk si bokk ak ñun bés boobu ku xam Baye Abdoul Aziz baax dégg nga jag saaw boo déggul jag saaw boo xamul jag saaw dégg nga ko boo ko miinul tamit dégg nga ko fi jag saaw googu nag moom la bésam ñëw ci bëgg-bëgg boo xamante ni Cheikh Al Hadj da baax masul dañ di ko bëgg gàmmu Tiwaawan daan na jot sax léeg-léeg mu jox Tiwaawan seet njaboot gi ziyaaranteeg mbokki taalibe yi waaye dellu siwaat fii ci jagsaaw muy fan yi burdu ba ak bésu gàmm ba ak waxtu yu dul yooyu mujjoon na ci dundam fu mu lu mu teel teel su xëyee lu mu guddi guddi dina dellu si jagsaaw lu mu guddi guddi tamit bu demee ci mission su ca paree rek dellu siwaat jagsaaw ba tax na kon ah jagsaaw barabu yàlla la ci barab la ci barabu yàlla yi di barab bu yàlla barkeel wax nañu ni Jaksaaw maam Maodo mi ko gor 1904 ga nekk àdduna bàyyi alxaaji Abdul Aziz radiallahu anhu la taxoon mu gor ko tamit dégg naa ni mag ñi tënkoon nañu tur wi te mooy jaju ba jàng te mooy xamlu ak xamle julli ak bépp xeetu jaamu yàlla boo xamante ni jaam bi mën na ca jële ngërëmal boroomam fi dunya wa fil axira ak mbay bu ñu nee mbay nag métier la liggéey la waaye liggéey tamit ak métier ëmb na lépp loo xamante ni rek war na mën a concerner nit ki ci dundam mu man di ca defi xëyam ak i gontam mën ca jële lu mu sàmme ngoram ak diineem dindal njabootam dimbali leen dimbali ay bokkam li ñuy ñaan yàlla daal moo di lépp loo xamante ni safaan la yàlla nañ ko yàlla dàqal dàqal leen ko ñoom itam lépp loo xamante ni ak càmm la jàmm la ak fegu la kaaraange la yàlla na leen ko yàlla defal defal ñu ko ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi def fi ndalte yokk koom-koom bi xol yi dëppoo ñaan jàmm jooju mu dem ba ci sous-région bi ñaan ko mu dem ci àdduna fu safara di tàkke yàlla na ko yàlla fay mbokk yi na ñëpp di wax jàmm di ko ñaan jàmm ci la lépp xaj